ñun dañu jóg fekk si Ousmane Sonko ci passe-passe pour Sénégal euh, foog naa Ousmane bi ñuy xamante man ak moom dina ci ñëw mën a am ci kanam ak léegi yàgg na te lu yàgg dëgg la parce que université lañ xamante yàlla def ñu ànd bokk classe ENAM génn bokk ci administration bi lu ëpp fukki at ak juróom ah, fukki at ak ñett fukki at ak juróom. donc xamante nañ bu baax euh, dina ñëw ci kanam wax ak waa Sénégal mais man li ma bëgg a wax waa Sénégal mooy bu ngeen bëggee gis nit ku gëm li muy wax parce que wax bu rafet moom yomb na boo jàngee rek mën ngaa wax nas ba mu rafet mais nga gëm ko moo jafe ci dëkk bi ñu nekk nii gis nañ fi yoonu yokkute gis nañ li mu li mu wane tey yoonu lekk yoonu yokkute ci pas-pas bi mën naa am ay kàngam ñoo taxawoon nas ko ba teg ko muy niru lu rafet mais ni ngay doxale ci réew loolu il faut nga am pas il faut nga nekk nitu nitu dëgg pour que loolu mën a jàll il faut aussi nga nekk nitu yërmande loolu aussi benn facette la boo xam ne man jàpp naa ne Ousmane Sonko am na ko te loolu il faut que nit ñi bàyyi ci xel euh, mën naa am waxinu dëggam ak ni mu koy waxee baña jaar par quatre chemins wax ko directement dina tax nit ñi japp ne ku dëgër la mais man mi ko xam xam na ne nitu yërmande la té buma koy wax amna ñeneen ñu may dégg tay euh man nañu juger ci loolu Ousmane à la limite boko gisé ci télé bi nga xam ko euh bokul parce que lo fu mu nek mom moy mooy lo nit ñi fu mu nek bañum ngay njëkk gis fu mu nek aussi yërmande ngay gis ci mom loolu aussi dama bëgg Sénégal bayyi ci xel parce que nit ki aussi bu buñ gis benn facette rek xaw a réer si moom ku am yërmande la jàpp naa ne tey bu jotoon ci réew mi du doon kuy nekk di def ay revanche ak kuy nekk di tëj ak di tijji foog naa liggéey bi xam na ne urgence la moo koy gën a ñor ci yenn euh, comportement yi nga xam ne suñu république vivre na ko gis na ko ci at yi jàll te neexul benn sénégalais réew mi dañ ko war a teg ci yoon ak ci dëgg mais aussi teg ko ci yërmande parce que loolu la ñu xam loolu la ñu doon kon jikko yoyu muy deug muy expertise xam-xam muy aussi yermande lolou la xam ci mom motax ma jog talal ko loxo and ak mom legui nak man lima ma bëgg mooy militant en tout cas Teranga Sénégal yi fi nek ngeen and ak militant Pastef xam ne aujourd'hui fii ak élection yi di ñëw ben objectif la ñam mooy fexe changer Sénégal fexe ba fal Ousmane Sonko ànd ak moom liggéey Sénégal loolu bu leen ci bu leen ci tàyyi na ngeen ci jóg da ngeen ci taxaw amuñu temps xëccoo ak xuloo loolu moom amuñu temps bi parce que ku nekk boo fexe ba sa quartier nooy rek liggéey la boo xamante ne nii doo xool keneen donc na ngeen liggéey xam ne euh, du yomb parce que yoruñu xaalis bu ñu joxe du yomb parce que dëgg la ñuy wax. mais nag mën na yomb parce que Sénégal yëpp pare nañ pour changement tey te changement bi Ousmane Sonko moo ko a